waa sama gars yi tey fii laa génn ak yéen dëgg neexul sama fans yi mbokk yi mbokk mm, <laughs> nu mu tuddati sax internautes yi noonu la di kone daal il faut faire les choses wareef daal <laughs> mënuma koo kii ci ka ci français yeggali <laughs> tey fii laa génnaat ci Saint-Valentin bi rek ba tey ba tey rek dara débordé wul wala sama couleur xoolal sama couleur rose sax du Saint-Valentin noir rek ay fay fii rek laa génn dëgg neexul daal maquillage bi moom ba tey rek jarul ngeen ma koy laaj daal ki ma maquillé woon rek moo ma maquillé dëgg neexul hmm? <laughs> ba tey rek mbëggeel rek l'amour nu ko koy wéykat bi waxee rek xam nga l'amour il fait tout dans la vie l'amour comme poisson dans l'eau dama nag tey damaa ngi mel ni kuy dem discothèque walla boob ñaf tii ko ne daal boo leen di bëggante bëggante leen rek ndax yàlla tax waaye di woote Saint-Valentin ah Saint Valentin ngeen di woté xawma té xawma tina ki nan tina ki Saint Valentin tamit nag na nek rek lo Il ne ci xol lay di dugg ci xol man il me semble quelque chose il m'appelait dal l'amour sincère il m'appelait tellement dangay waxa waxa waxa waxa waxa wax ba xiif sa ndoxu gémmiñ bi yépp jeex te loolu duma arrangé tamit <laughs> lii de moom daa mel ni kii la de <laughs> nu ko ci kii di waxee sax beñe fariñ <laughs> waaye tamit hmm? comme lance pierre bii moom kii la de kii la de nu mu tuddati sax fëriñ la de xaw ma nag ban kii moo ko defar waaye bii daal je connais pas bii baaxul fëriñ bii ku ko defar baaxul doo comprendre daal may lekk rek. dëgg neexul. loolu hmm? moom. ma ne ko kii moo la defar bii nag <laughs> eh, waaye Samba liy weex de xaw ma lan la nag xaw ma meew la xaw ma soow la xaw ma daal si kone baa man ma woon am babet

na kii de meew sox nuñ koy waxee ci faranse meew fermenté xaw ma di kone lii nii daal daa mel ni am na kii daal soow xaw ma nag ban façon soow la ah. nanguwu leen ñëw <laughs> am na meew am na soow xaw ma ban façon meew la nag waaye meew bi moom bi ci ne nii bu daqul de dangaa war a ñëw nag lii may liggéey nii te xaw ma lan la araw bi moom xaw ma ku ko mënti araw <laughs> allahu akbar may may fàtte année année soixante Saint-Valentin mairie de nii lañ ko doon defee dañuy sañse ba mu neex leen andak ak seen lamour buñ ànd ak seen lamour dox touti yeungal nan dal di jallale duma ko meuna ki tema yot ndam duma la meuna a tamit ah ko ne daan cette hmm? hmm? l'eau il me s'appelle de c'est très bon l'eau yes année 60 nii de lañ doon defee Saint-Valentin dañuy génn fii sañ sañse ba jekk macha allah ànd ak l'amour ñu wëyër leen c'est l'amour oh, oh. yàgg woy la nag kooku <laughs> waa ju baax yàgg nga ma woo waaye duma la jël dégg nga ma naan see l'amour rek maa jigéen nga may woolu ay maa jigéen séentu nañ la ce wëy wa nga ne doo ca yem fi mu ne nii nag nee nga mikk rek ku président taxaw nga taxaw fa di ko baax ay ay ay man kii mii waa ju baax nag yemal ci woy wi yemal ci wëy wi rek muy neex foofu toj waaye lii tamit xam ban usine la waaye di ngeen war a ñëw nag lii ca araw wala dafa set kii bi waaye lekkuma yax de may seeñu ñii rek <laughs> way waaw ah, man ndox mi xaw ma ban façon ndox ma ko naanee sama biir bi nekk fii di daw nag ah da ngeen war a ñëw de lii yëpp daal man bu sell bi moo ma gënal daal bu sellee rek te neex rek dina ma gënal yow moom baax nga ci man lippal <laughs> na gas yi ma ne de <laughs> alhamdulilah rabbil alamin mbokk kii <laughs> mbokk kii ko moom dangaa mel ni lansper pierre rek xam nga ban kii moo la defar waaye daal dégg naa réew bi moom ñu ngi fiy defar yu sell sax danoo war a ñëw nag dëgg neexul lii dëgër na waaye am na guude <laughs> c'est koné daal ah lii fataate de lii comme laspère de léegi bu ko defee dañuy dem rek fans ak mbokku internet yi tey bii laa la indiloon rek ci Saint-Valentin bi tey moom mayuma kenn benn président bu ma woo di ma sonal buñ bëggee falu rek xam na ne maman mii Mamouska mii mooy toj réew mi ñu bëgg laa jàpp di la di di la ngawti ngawti te loolu duma arrangé kon tey lii rek laa leen indi leer na woon madame monsieur bonsoir